dal leen ak jàmm kawteef amati na ci dundinu ndongo daara yi fii ci Sénégal amu fi ndey amu fi bàyyi ndongo daara sonn na te bokk na li ko sonal muy yend ci sëriñ daara yi nga xamante ne seen doxalin ci ndongo daara yi doy na waar ndax dañ leen di métital di leen dóor di leen duma def leen ni ay jàmm ab ustaas bu daara Xaadim Gueye nekk fële ca Njañ ci commune bu Louga moom la sandarme yu kokki teg loxo ana lu ko waral ñu ne ndaxte kat dañu dem ca daara jooju ñoom sandarme yi ñu jàpp jatang leen takk leen ba ñu dëgër loolu waral ñu jàpp ustaas boobu boole ko ak way juru ndongo daara yi fa nekkoon daal di leen jàpp tëj leen ràpp ci kaso bi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar mel na ni kenn ci taalibe yooyu ñu takkoon dafa rëcc di daw bi mu dawee ba dajee ko ab waay waay jooju moo ko yóbbu ca këram daal di koy filmer di ko laaj ay laaj yu mu ciy tontu di wax naka la ñuy dundee ca daara jooju boobule vidéo moom la jël yóbbu ko ca procureur gendarme yi dem def fa descente bi ñu defee descente daal dinañ dem ba ca daara ja fekk yeneen ndongo daara yoo xamante ne ñu ngi leen a yeew dañ leen a ñàdd daanaka bañ mel ni ay jaam gendarme yi yemuñu foofu ndax dafa mel ni responsabilité bi ñëpp dañ koo partagé ñu daal di boole nag ndongo daara ñu daal di boole nag sëriñ daara boobu ak mboolem way juru ak mboolem way juru ndongo daara yi nga xamante ne ñoom ñoo yóbbu woon seen doom foofu teg ci waay ñoom ñoo jënd buum yi nga xamante ne moom la ñuy yeewee taalibe yooyu maanaam daanaka sax mel na ni way jur yooyu ñoom ñoo jox ndigal sëriñ boobu ngir mu takk taalibe yi loolu waral na sàndarma bu kokki boole leen moom sëriñ daara ba ak way wayjur ya ne leen ràpp ca kaso bi laara bi laaraan ndongo yaa ngi yalwaan mu mel ni sëriñ daara boobu tey moom mi ngi yalwaan liberté li xew kay mooy ay mbokkam wala ñu ànd àndandook moom ci njàngalem daara bi dañoo jóg takku tem ngir ñu libéré sëriñ daara boobu ñu ngi teg ay pression yu am solo pour que procureur bu Louga mën a libéré sëriñ daara bi ndax dañ ko libéré am déet lu ci mënti am dinañ ci ñëwaat ak yéen ci ay xibaar yu gën a wér